salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com yaakaar naa ne tey fi ñëw chaque jour dama naan leen euh, yéen ñëpp miin ngeen ci kër gi yaakaar naa ne mii kër soxna Aida mu Serigne Saliou ah moom nag moo fi waxoon suñu site bi euh, que actualité lu am tey affaire Fambaye mu ne woon waa ji koy mu mënu ko faj du ma sax jaar ci dërëm du ma def rek lu jox ko kàddu yi mu ndoog mbokk internet Dakarnet yi après ñu dëkkal moom ci waxtaan soxna si ñu leen di di la ziar salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum diaspora waaye di nuyu sama buntu ci sëriñ Saal sëñ Mountakha Bassir di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla na yan bi oyof Mbàkke Bàll fu tarxiya nekk soxna ay daa nga fay dugg di leen di leen ziar leen jox seen wàccuwaay di ñaanal njabootuk sëriñ Saaliw yàlla seen fan yu mel ne doj ci barke Seexul Xaddim waa leeral Dakarnet Dakarnet mm-hmm. waaw yéen sama doom yi mm-hmm. ah site bi mm-hmm. bu leen ko di fàtte di leen abonné soxna ay daa nga faak yu doy waar ma sénégalais yee ma bëgg nag noonu la demee rek <laughs> alors mi ngi noonu kooku mooy soxna Aida bu Serigne Saliou yaakaar naa duñ def ak dund waxtaan ak moom parce que mun nañu sax soxna Aida bu Serigne Saliou mi ngi dañ koy dàkkalantale borom baar waaw Messi waa Messi borom baar lu ñu rek lu dul ah, dikk ci feebaru Fambaye bi ñu gis ni amoon na benn sëriñ bu ko doon faj no mun na ko faj te instant yi gis nañ ko mi ngi génn ci site internet yi di wax ni dafa feebar feebar bu boo xam ne dafa metti macha allah ba léegi feebaram bi mënul tane nga doon laaj ah, naka nga ko gisee waa site yi bokk ne ci site yi ma ni won ne feebar bi ku koy faj du maaraa mm-hmm. ku koy faj du nitumaa mën mm-hmm. yàlla dogal na dogalami yi nag weer nañ ko xaawi suturaam li ma ci doon wax yépp mooy lii mm-hmm. nee naa leen internet tuddul internet inter denc la tudd. bu wax yi wéree coow li ubbeeku. Hmm. soxna ayda nag lam leen waxoon yëpp yaakaar naa ni soxna Aida dem leen vaar. Hmm. may borom vaar. Hmm. du ma wax lu ma gëmut du ma wax lu ma xamut du ma wax lu ma mënut. te lu ma gis ci réew mi ba ne leen kii li mu def du nii rek du nii. léegi lii ñu bàyyi woon ko mu dund ak feebaram ci sutura. ñu faj ko ci sutura moo gën waaye maa ngi woo sama doom Waly Seck. yow engagement boo engagé di nga ko jël. faramareen lii du dara Fambaye yi yaa ko njëkk a mhm. yaa ko njëkk bàyyi mu xàppi yaa ko njëkk teral yaa ko njëkk bàyyi yaa ko njëkk a mhm. di la ñaan rek mhm. yow doo seetaan lu métti dégg nañ tamit waaw ah, comme ni nga wax rek mu wax ci Wally que ni Wally da ko joxoon 15 na ko téel ma ba keroog may am ku mu mën a faj après ñu faj ma waaw waaw mais yaa geste boobu naka nga ko gisee ak tamit ba xam tey ah, kooku noonu di Fambaye tey nan lañ ko war a mën a taxawoo ba dimbali ko mu faj. Fambaye sonn na engagement wu président de la république la waaye engagement wu Sénégal yépp la. Mhm. képp koo xam ne yaay nga wala doom nga am nga yaay am nga rakk am nga mag am nga bàjjan te jigéen dafa bokk ci société bi. Mhm. ndax ku fi tedd tey rek jigéen a la fi indi. Mhm. may ñaan kilifa diine kilifa aada. jeunesse bi. képp ku am sa doole booy wane wala booy jaay wala nii laa mel. Mhm. wala di ko wane. Mhm. wane ko ci Fambaye defal ni Waly def. Mhm. Fambaye li mu wax dafa daw yaram Waly jox na ma quinze millions waaye man maa ko ni téyal ma ko ba ma gis solution. te dina ko doole de pour Faramareen. bu fi 100 millions nekkee da ko jël engagement du ci xaar kenn. visa la koy tamponné léegi mu dem. aussi tamit euh, lu bari jaaxal Sénégal euh, sénégalais yi parce que euh, gis nañ Abdoulaye Diop Khass da ko fajoon andi ay caméra filmé ko yaakaar naa ne loolu dafa dem ba mujj gi dafa jaaxal nit ñi maanaam. loolu newoon naa la laajte poobar bu mokk mm, la ca Ndoye Bane waxoon Ndoye booy Ndoye Ndoye Bane dafa jar a bàyyi xel. Mm-hmm. man xaw ma ko waaye doomu piir la. Mm-hmm. te man doomu Njaañ la mm-hmm. macha allah. Ndoye Bane dafa jar bàyyi xel gis nga sénégalais. même Adamo sax dama ko bàyyi xel. Adamo. Mm. Adamo. Mm-hmm. ku jar a bàyyi xel. moom génn na ci vidéo yi dama ne mm-hmm. jëf ji mu ci def du jëf ju tuuti de jëf ju rëy la. Mm-hmm. gis nga bu nit defee jëf ju rëy. dañ ko naan di nga def daa rëy. Adamo dafa def lu li mu def ndaw. mais tamit meer neexum bàyyi saaga yi. comme léegi comme léegi bu waxee gars yi dañ koy déglu. no fi nekk nii. xam nga Sénégal. yenn saa yi soxna Aida wax ñu ne lu tax soxna Aida wax lii. te au plus tard njariñu Sénégal parce que dañ koy dégg. dafa am ñenn ci senegal sénégalais balaa ñu lay dégg dëgg mhm. da nga leen di saaga bay pare bu ñu la dégloo ba pare nga wax leen li fi moom daa saaga bañ déglu ko mhm. mu wax leen li fi am na ñu muy saaga am na dul saaga mhm. parce que am na ñoo xam ne amaana defuñu lu tax mu leen di saaga amaana ña muy saaga it am na lu tax lu ca biir sëb la ko bënn ngi ca biir mu ngi mel ne dóor ak yarta bañ a am am ñoo xam ne dóor mooy tax ñu dégg la am na ñoo xam xëj mooy tax ñu dégg la am na ñoo xam xëj seenum nopp woo leen sukkule moo tax ñu déglu la am na ñoo xam da ngay ñëw wax ak ñoom ndànk ñu déglu la catégorie yooyu bu doon loolu la autopolice bi du bu kenn. bu doon loolu la tribunal kenn du fa taxaw juge bi du àtte kenn. Mhm. bu kenn ku ne xamoon li ñu lay wax na di nga ko dégg. Mhm. kon juge bi du àtte kenn. Mhm. tribunal du téye kenn police du jàpp kenn. mais ñàkk communication ñàkk déglu communication yi. mooy waral lu bari di am Sénégal. Euh, aussi tamit ñu gis ñun tamit. comme waaye rafet na de macha allah. d' accord waaw comme comme ni ma ko taxaw. waaw mbaa nga teral ko. Mhm. nga dimbali ko ci sama bopp rek laa koy xool. ndax damay yaay. te mhm. Fambaye di nit kersa. Mhm. ku ko dimbali man jëmm ji nga dimbali. mais tamit weer ko tamit ba ba ñëpp gis ko te fayoo ko tamit. dama ne yokk jàngoroom dong ba yoxe laan leen poobar <laughs> xam nga ni nit feebar ba toll ci moment. Mm. au lieu que ko di ko mariner. <laughs> jàpp ko di ko mariner jël laaj ji di ko sam-sami jël la bi jël poobar bu mokk bi muy sab sabi nga dem ba fatt xoolal sama xol bi day metti garaawul sénégalais dem leen vaar. Eh, waaw bi dooru soxna Aida nee ñu dem vaar duñ dëkk rek ah, du duggaat fenn koo xam ne ah, muy ma Abdou Aziz Dabaax ah, ñu koy ñu koy feetal que ni jamono ba mu génnee àdduna ba léegi mi ngi mi ngi toll ci 24 ans lan nga ñu mën a wax ci nit ku tedd kooku noonu di maam Abdou Aziz Dabaax. dama ne bu ma soyaatoon mag ñu baax ñëpp dañuy yeewu ñëwaat. réew mi fi ne dañoo soxla sunu mag ñi anniversaire yi ñu leen di defal sax mhm. kaame yi ñu ciy wàtteeg yëpp da ciy baax mhm. xam nga mag ñu baax ñi dañ fi am place mhm. te mag ñi bari kersa ñëpp ngi dem réew mi ku bari kersa ñi bari kersa ñi mun taxaar li xew li ñëpp a ngi dem defante lu ñaaw li waxante lu ñaaw li li day delloo siwaat pour ñu bàyyi waat xel mag ñu baax ñi parce que mag ñu baax ñi li ñu fi def mi ngi fi seeni vidéo ngi fi waaye sénégalais yi eh, fi mu dafa mel ni seen machine déggukaay lu baax li moo yàqu boo leen dee dimbali ñaan leen wax leen lii def leen nii def leen sarax man ku demoon vaar rek. Mhm. bari na Sénégal loo xam du fi xew barke yonenti ku demoon vaar. vaar yàgg ko buñ doon dem vaar ci soxna ay Aida di ma déglu. Mhm. Sénégalais dañ maa ameel njukkal. joxe nga sarax bu nekk fii ci Dakar sarax bu ne te sarax bu ne ngëneel la fii ku fi waaj a feebar ma génn ne la yow mi kat lii ngi ñëw ci yow. Mhm. lii ngi daal yàlla ma def ni ma mel. yàlla bu ko nekkoon def ma jar. maa mu def ma café Touba. maa mu def ma mat leen. waaye soxna Aida nii la ko yàlla def. Mhm. soxnam Aida mu Serigne Saliou. Mhm. man soxlawuma ku ma ma recevoir ba ma amee Serigne Saliou laa doon multimilliardaire. Mhm. lu ma war a am sëñ bi defal dama ko. ba ma juddoo. yàlla dogal ma doonu murit. la tête. li des kay. mooy sénégalais yi. nan may dégloo fi ma leen di waxee nopp garmi yi. ak vaar <laughs> maay messi. <laughs> soxna ay regret yow yaay mu neex ak mu neexul maay messi. parce donc la dama ko judduwaale man jàngiwu ma mhm. ay dama jàngi woon ay samay fikir ma non non don la dama judduwaale da nga judduwaale waaw ah, kii branché moo ma branché kii branché te du débranché mi Serigne Saliou alors mi ngi noonu yaakaar naa lu ñu amoon ci ay minutes jeex na duñ defee lu dul tàggatoo ak soxna si sant gërëm di waa ñëpp ci màggal gi mhm. ku bëgg samay produit mbaa nga bëgg samay pomaat fekk ma Touba Mbacke évité naa ñëpp mhm. ñaan yàlla kuy dem na nga jënd juróom-ñaari suukar wala juróom-ñaari mbuusu soow nga saraxe ko ci màggal gi wala juróom-ñaari kilo mburu maa ngi koy ñaan ñëpp yàlla bu accident am yàlla bu tolof tolof am na safar yi nelaw na nit ñi dem Touba woo nanu jinne yi woo malaaka yi woo nanu mm-hmm. sama jinne yëppay dem Touba. incha allah ak yeneen waaw mi ngi noonu yéen mbokk internetu Dakar Net yi moom ni nga ko waxee soxna Aida lañ dalaloon moom nee na mooy borom baar aussi moom mooy Messi te yaa xam naa lépp lu Moussa wax rek ñun ñi ñëw di ko seet si après dinañ ci gis lu bari loo xam ne tamit ah, waxoon na ko lu ñu def rek lu dul ah, jamono fii waxtaan bi ak ëllëg ak keneen incha allah di gërëm sama kanamaan bi jeey ah, di ko wax big up